wallahi taala ñi ngay defaral yow amaana première daam sax moo ci gën a tuuti tey dangaa ngaa defar fële ba egsi ba fii li ngay defar moo rafet première dame bu ne dina ñëw déggoo ma de jub sa xol dafa rafet te li ngay def da nga koo mën man maa ngi nii saa yi su ma ñëwee diis la problème yu bëri wax na ba ba tàkk <laughs> jël li ma bëgg dem te du dërëm lu ma kàngee di laaj waaw euh, donc euh, wax dëgg yàlla man bu nit ñi di fay ay millions ci kànge it yëguma ko waaw yow loolu yàlla dogal na ko euh, fierté lay da ngay xam ni dañoo yàgg nga jël yàgg boobu xaaruñu ba instant yi ñëpp daw di ko wut si nga nga bëgg a cenc cencoo benn yoon ci man donc yow wax dëgg yàlla fierté nga ci ci ci ci ci ci Sénégal yëpp man damay am mag gi tamit ñëw muy Ndey Diouf ma koy ñaanal moom tamit Ndey mm-hmm. Diouf sama mm-hmm. mag la ñoo bokk yaay mais moom waaye man damay nuyu sama yaay ja fële depuis état nuyu sama yaay sama yaay moom laa mujjee <laughs> ndax kooku tey jii lépp moom la ndax ba muy metti moom rek la woon kon mm-hmm. tey jii bu neexee lépp dañ ko koy santé maa ngi nekk États-Unis di def lu baax. merci beaucoup ma koy ñaanal gudd fan ak wér. ak yàlla kook njabootam ba lépp lu ñu laay lépp lu ñu bëgg si moom yàlla yeggaleel ñu ko. amiin parce que moom rek la ñu am macha allah. macha allah ma koy ñaanal gudd fan rek ak wér moom lool rek laa koy ñaanal. gudd fan rek ak wér. amiin ah. Aïcha Mouhamadou Moustapha waaw man damay souhaiter joyeux anniversaire Adji Maguette Mboup. Euh, Adji Maguette Mboup waaw Adji Maguette à toi. et merci beaucoup Sada Classique Couture mi ma bien tey numéro am di 77 140 54 75. 78 417 17 37. merci beaucoup à tout le monde. dara moo ñëw tey am force. moom mais yow xam nga yow ngay ñëw daf may dooleel. en fait Mouhamadou Moustapha waaw yow ngay ñëw daf may dooleel. xaarim moo ñëw robe bi. non yow sa <laughs> Euh, Amina ayca Amina Mbaye port autonome ah Amina Mbaye euh, pour autonome bu Dakar ñu ngi koy nuyu bu baax moom sama xarit la Karajo euh, maa ngi koy nuyu bu baax moom Mamadou Moustapha yow nee naa yow wax dëgg yàlla ngay dend ak man daf ma yokk. waaw ah, yow wax sànq dama la forcé ne la xaw ma loo mënti def. waaye rek na nga ñëw Moustapha parce que damay wax damay bëgg di wax di gestu di wax Moustapha. mi ngi ci tane lépp lu la war a dal na dal na ma dal ah, ndax yow nee naa la euh, waaw ci waaw mm-hmm. na na ma dal sax nag na ma dal kii maa yaayam <laughs> kii yaayam ah, euh, damay am fierté à chaque fois euh, yaay booy kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal ci dalal bi nga xamante ne dalal nañ la ko tàggatoo ba léegi foog naa waaw ah. yow tàggatoo nga ba pare ah pare naa ni ah yow boo pare wul looy def na dinaa sa naa la tax nga di ko yokkaat leneen lu ci bokkul <laughs> waaye damay nuyu aja saar suite ba ti ma xool waaw yow xoolal numéro yi waaw maa ngi koy nuyu. ayca damay nuyu euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa tapis vert. Amadou hmm? ah, Mbaye fële ca Mermoz loolu naa ko Oustaz Modou Fall ne ko Oustaz Modou Fall nuyul Mbaye nuyul Pape Mbaye nuyul Mbaye mu ne ay Mbaye nuyul Mbaye. nuyu nit la. waaw doo nuyu Mbaye nuyul dafa nuyu Mbaye mu ne ma am hmm. dañ koo jur ñu nuyu ko Sénégal a ngi nii dafa ah, gis naa ku ne da war a génn wax ma leen occasion bu amee du ñëpp ñoo mën a am euh, euh, euh, verbe facile du ñëpp ñoo mën a wax comme bijou nañu bàyyi di force artistes yi à que ñuy wax ay diwal génnal wax diwal génnal wax tey jii boo fi tegee benn Viviane la mënul wax hmm. du nit kuy wax ci ay détails ci ci yu mel noonu nit ku nekk ak li ko yàlla bindee bijou mën naa am grande gueule bu toll ni waa nday ndaak mën naa nekk Zeyna la guerrière comme ni mu ko defee pour ñëpp du dëgg mais du ñëpp ñoo mën a nekk Zena la guerrière comme ndaak ayca ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom day euh, gis nañ lu lu rafet li nga xamante ne taxawal na ko waa Sénégal euh, ñëpp lu ko wax dëgg yàlla moo koy félicité a moom moom nee naa ko yaay Zena la guerrière bu 2STV yaay Zena guerrière Sénégal yow jox nañ la chapeau Zena la guerrière ñu ngi sa ginnaaw voilà nday xeexal jëm ca ah, kanam ñu def parage bi Hercule. garaawul yëpp nañ ko bu laajee joxe bakkan yi de nday nañ dem joxe bakkan waaw ñaata bakkan ngeen dese yéen bëreetu Camaro foofu la bakkan amee sax ah, wuy ma <laughs> euh, waa tapi vert ña nga noonu euh, wax dëgg yàlla Souleymane maa ngi lay gërëm bu baax ci teew bi nga xamante ne teew nga ko waaye awa ah,